ñu ngi nii réew jaay doole lañ nekk dañuy jaay doole. jaay doole jaay doole la. jaay doole askan wi di war a nekkal. xale jaay doole lañuy def ñu ngi nii rek. ñëw kër jaamu di dagg ay fii affaire jaay doole. convocation ngay indi loo ko jox borom ñu dem affaire muy wuy ji. dama réew jaay doole mu leen wax ba duñ def ñu def bu leen nokk waaw nañ dem ñu def ñu ñu Canada ñu mën dara dama lay nokk waaw noppi ku ci mën nag na war a yaar waaye du billaay damay wax damay wax damay def du mel rek du mel rek ku ci mën dina war a rey ku ci mën dama rey bu leen ko bu leen ko bu leen ko def dara lu ñaaw nag. non da ngeen sañ def dara lu ñaaw bu bu leen ko jaajëfale bu leen ko def. bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal bu ko laal. ay si doon ba pare ay si doon ba pare. da ngeen koy da ngeen koy def. da ngeen koy def. doole jaay doole dañuy jaay doole. réew jaay doole la ñuy def teewal ko si yoon. jaay doole lii jaay doole la. jaay doole la jaay doole jaay doole lii jaay doole la. teewal ko si yoon jaay doole ngeen jaay doole. jaay doole bu ko tëjoo jaay doole dañuy jaay doole la ñuy jaay doole la ñuy def. bu ko gëm dina ma ko yokk. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole. réew jaay doole lañ nekk. réew jaay doole.